màggal li nga xamné ni mom lañ wax journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse euh wàllu euh, désert ñu xamné ni moy all bo xamné ni amatur garab hein, mooy ndànd foy foy ak bekkoor sécheresse mom la ñuy wax bekkoor te bekkoor baaxul ci dara baaxul ci askan bi baaxul ci malay yi ren nag euh, euh, thème bi ñu tànn moy lepp lu jëm ci wàllu droit mooy yelleefu jigen ci walu suuf jigéen ñi dañ gis seen xarañte seen takkute ak liggéey bi nga xam ne ni moom lañ def ci forêt classée Mbao moo tax ñu jagleel leen journée bi ñu tànn forêt classée de Mbao parce que gis nañ ko ci visite bi li nga xam ne ni moom la ñuy moom la ñuy moom la ñuy liggéey moom ñoom ñu ngi béy béyum dër di di ci am ay légumes di ko jaay bu ñu ko jaayee ci kër yi lañ ko jëmale pour dundal euh, seen njaboot mais également faj seen njaboot te loolu tam dafay dugg ci économie bi Euh, président bi wax na ko sànq ñi nga xam ne ñoom la ñuy lëkkaloo ak forêt mais li nga xam ne ni njëriñ bi nga xam ne ni moom la ñu am ci suuf si nga xam ne moom la ñu béy xam nañ ne Dakar pour am fi suuf boo béyee dafa aw jafe moo tax boo xoolee même département Dakar yeneen département li ñu wax mooy euh, maraîchage de table mais nga teg ko ci sa balcon wala nga teg ko ci sa cour parce que amoo suuf boo béy mais fii yàlla def na ci plan d'aménagement am na fu ñu leen jagle te ñu ngi ciy béy ñu ngi ciy gis seen bopp forêt bi aussi mu ngi ciy gis boppam